coono bi yaa maa def te des saa pas d'ici. waaw waaw. Waly Waly bindal ko bindal ko arrêté le centre du peuple barke Rasul yaa fi ne yaa fi ne Happy birthday to

nit ku riche am nga riche riche xam nga du ma indee naan riche tubaab bi naan riche. non si naaj naan riche. mais yow riche bi gën a kawe moom la. yàlla na yàlla taxaw. amuñu ku dul yow. ñu ngi mel yow la ba yeneen yàlla moo xam. Oh. fu ñu nit respecté. fu ñu nit joxee cër. fu ñu nit bëggee nit boo. demul ci yow mii la. amuñu la. amuñu la de. yaay suñu satu be suñu satu bopp.